tolloog le 28 février 2019 ñu war a xaarandi résultat yi élection présidentielle yi 24 février passé 2019 fii ci Kaffrine 11h mbedd yi na selaw mu mel ne seetlu nañ fa ak njaaxare ak jaaxle gu metti avant juge bi di ñëw di joxe résultat des renseignements venant de l'étranger pour ne négliger en tout cas pour ne laisser en rade aucun suffrage exprimé

ci loolu loon amal benn caravane bu mag dugg ci mbeddi Kaffrine yi di wane ak mbégte gu mat sëkk

l'allégresse, la victoire irréfutable, claire, limpide du président Macky Dans cette victoire, Kaffrine a largement contribué. Parce que comme l'a dit un journaliste, Macky est dans le cœur des Kaffrinois. Mes propos ne seront pas longs. Ils seront simplement l'expression de remerciement d'un groupe qui a travaillé. cette victoire à Kaffrine n'est pour, ni pour l'un ni pour l'autre. Elle est la victoire de tous les Kaffrinois qui se sont donné la main. D'abord au sein du comité départemental dirigé par mon grand frère et ami Adama Diouf, absent pour des raisons de famille. Les élus, Madame Sega Faye en a parlé, tous les élus de tous les partis et de toutes les sensibilités, les responsables unis ceux de la paix coordonnés par Abdou Aziz Ndiaye, ceux du partenariat dirigé par mon grand-père et ami, le député maire Abdoulaye Bilal, ceux des partis partenaires, pour ne pas utiliser l'expression alliée, tous la main dans la main, la société civile à Kaffrine, tout le monde a voté Macky Sall. À partir de demain, les nouveaux chantiers vont s'ouvrir. Les nouveaux chantiers pour le Sénégal, pour la région de Kaffrine et pour le département de Kaffrine. ma bëgg nag ci ay kàddu yu gàtt lii fi xaw tey mosu fee am ay président gagné woon nañ fee élection waaye li fi génn ci mbedd mi ñi ñi génn seen kër yi waxtu añ nga xam ne séeréer ak ndaw ko ñi ak sant wilaan pour ñu génn day jafe ñépp ci mbedd mi kon nag war nañ koo sant yàlla li journaliste ba waxoon rek Macky Sall ci xolu waa Kaffrine la nekk loolu bu ñu amee ndam lii du ndamal Ablaye Wilane du ndamal Ablaye Sow du ndamal x ba y ndamal ñu joxante loxo ngir Macky Sall loolu ñu jiital ci le président Adama Diouf nekku fii mais njaboot moo ko tax a Adama Diouf moo ñu jiite ci jiite bu rafet ci jiite bu yamb mu nekk kilifa màggal ñu ñëpp. uuf ñu téye ñu ba ñu ñëpp ñu mën a jubóo ñu ànd nekk benn pour le président Macky Sall ñu gërëm ci élu yi député yi Yaay Ndaw Diop Leyti Ndiaye ak ñi day nekk bi léegi muy Abdoulaye Wilane di maire dëkk bi itam uuf ñu ci biir commune bi màggal ñu téye ñu ñun ñëpp ñu ànd nekk benn ba tey démb ñu ngi woon permanence su APR tey ñu nekk dans la mairie dirigée par un maire socialiste c'est ça l'unité unité boobu lañ war sàmm victoire Macky Sall bi dafa war a nekk un nouveau départ pour les Camerounois nous pouvons être de sensibilités différentes nous pouvons être d'options différentes visions différentes mais quand il s'agit de Kaffrine frappons ensemble pour son développement loolu mooy message bi tey ñu doon wax ni deuxième tour mën nañu nelawi xaar 2024 waaye waxtu wii waxtu bànneex la même ñoom ñi nga xam ne ñu ñoo leen duma il faut ñu fair play xam nga man sportif la il faut ñu fair play même ñu duma nañ leen tàllal loxo ñu bokk liggéey defar suñu Kaffrine Kaffrine bu yàqoo ñu la yàqule bu defaroo ñu ñëpp la defaroo donc ñu rafet raxas xol yi ñu àndaat nekk benn buñ war nañu sabote bi na fi yem élection yi jeex na. On tourne la page à partir de demain et on commence le chantier de la reconstruction. Construction du Sénégal, construction de Kaffrine, construction du département de Kaffrine. Je vous remercie. avec Macky, Macky. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ku doon ñaan ke li gën ci Sénégal yàlla ku doon ñaan li gën ci ak Kaffrine yàlla def ko tey à partir d'aujourd'hui leer na ñëpp ne ki gën ci Sénégal ki gën ci Kaffrine li gën ki gën ci mooy Macky Sall te dama ne ku nangu li yàlla dogal doo sonn soxal ku nangu soxal ma ne ci turu Adama Diouf président du de la coalition Benno Bokk da ko sa 2012 mu ñam def ngeen dàqamtiku ne dollil mu ne kon nag gor ca wax ja li ñu waxoon def nañ ko li des mooy lan ñaanal Macky Sall mooy ñaanal suñu bopp ndax loolu ñu àlla jàpp si sa baax jàngal et ñun nag li ñu xam mooy koo séqal teraanga nga fexe gën koo yéwén gën koo gore laaj ñu ko dara yaakaar nañu ne xam na li ko war ci laaj ñu ko dara yaakaar nañu ne am na lu mu yéene waa Kaffrine waaye ñu ngi koy wax ne ah ah bu cër yëpp ñemee am ko gedd bosam ma ne ba mu méttee ba mu taree ba mu jafee Kaffrine kuus na kuusaanee ñeneen xibaar bu bees ñëw na waaja ndaama la ak ñi mu àndal ñëpp gaa ñi nangu nañ Macky daan na leen gaa ñi nangu nañ Macky daan na leen gaa ñi ba daan na leen daan na leen daan na leen daan na leen wax ne ñoom duñ def recours nee nañ duñ ko diingat waaye daal pour ñoom kenn daanu ren moo tax ma ne wàcc ci daanoo ci gën a gaaw lakk a gën a gaaw togg bañoon nangu nañ Macky na leen an kam ni kam moƴƴo ka ka ɓi moddo kan pular wi yiwma yewma anda ko gonɗa min mo ramnima a en en laynodiri donc li ma bëgg nit ñi xam mooy wax dëgg yàlla kañaan moom pour suñu xol léegi nag ndam lii na ñëpp ñaan yàlla mu jik Sénégal mu jik Kaffrine waaye mu jik waa Benno Bokk Yaakaar maa ngi daaneel di gërëm la presse sénégalaise wax naa ko démb dinaa ko waxaat depuis 2000 bu résultat leeree c'est parce que la presse fait son travail la presse est un maillon essentiel de la démocratie